jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokki yi nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte bu baax a baax a baax comme niñ leen koy defalee saa su ne bu ngeen gisee fii ñu ñëw muy arène nationale nga xam ni taarix la boo xamante ni làmb moo ko moom waaye ñu ñëw fii ci daje boo xamante ni euh, dañ fi dajale ay promoteur ki leen fi dajale ñii nee nañ président CNG la ñii nee nañ euh, ministre des sports moo leen fi dajale waaye am na ci ñeneen ñoo xamante ne dañoo ñëw ñuy waa kuréel boo xamante ne ñooy ARENS ARENS nag boo ko déggee mooy kuréel bi jiitee association et des écuries de lutte du Sénégal nga xamante ni tey ñoom ñoo ñëw ci biir réunion bi waaye ba ñu ñëwee dañ leen a génnee. génnee bi ñu leen génnee mooy ñoom réunion bi bokkuñu ci ndax promoteurs yi lañ dalal bari na ci ñoo xamante ni wax nañ ba mer parce que génne bi ñu leen génnee ne leen benn représentant ngeen mën a am ci biir euh, loolu metti na leen ci mbooloo boo xamante ni ñëw nañ dégg nañ Aliou Ba su ko defee dañ koy bàyyi moom it mu wax Zos ñu déglu ñi nga xamante ni ñëw nañ parce que ñii ñëpp boo leen gisee nga xam ni ay responsable écrits yoo xamante ni ñëw nañ fii làmb ci biir école de lutte ca la nekk parce que écurie moo jiitu école de lutte école de lutte boo xoolee diggante per Balla la diggante suñu papa Doudou Bakassar la diggante ak diggante ak diggante bu njëkk da nga daan wax écurie fas wax écurie Grand Médine wala nga wax yeneen écurie waaye tey boo demee bay dégg écurie euh, école de lutte moo lay wan ne làmb am na ci ñoo xamante ni dañoo bëri ba tekki ngemb doon ay euh, ay mbër. yoo xamante ne dañuy yor école de lutte di jàngale bëre mais loo mën a xew daal mooy am na coow loo xamante ni juddu na fi bari na loolu su ko defee ñu dugg ci biir wan leen gars yi la ñuy wax ak la ñuy ñaxtu lan la. man la Aliou Ba secrétaire général bu Bathie Seras Guinaw Rail en même temps nekk entraîneur bi principal nekk aussi tamit euh, secrétaire général adjoint bu ARELS association des responsables d'école et écurie de lutte du du Sénégal nekk aussi secrétaire général bu ANELS association nationale des entraîneurs de lutte du Sénégal ñu dégg ne ak Covid bi dañu am xaw ma ay subvention mais dañ dañ ko war a joxe en même temps bëgg waxtaanal ci affaire làmb ji ci huis clos beeg yooyu mais yaakaar naa làmb kenn mënu ko wax pare nga bàyyi écurie bàyyi école de lutte parce que base bi yëpp ñoom la te tamit tey jii bu ñu demee ba ñu war a woote ba ministère joxe feu vert war ñu mën a tëb ñooñu kon tey ñoo nañ fii nañ ci salle bi ñoo nañ mais nee na woo promoteur yi woo ñoo woo mais balaa ñuy woo promoteur bu amul la war a jaar ci yi la war a jaar ak école ñoom ñoo ñu teg ñoo ñu indil fii ay ay ay formalité yoo xam ne utloo ñu ay kayit utloo ñu ay récépissé ñu teg ñu dañu bëgg a professionnaliser làmb ji mais ñoom li ñuy li nga xam ne moom moom moom la ñu doxalee affaire informelle kese moom ñuy def ndax chaque fois dañu leen def reproche boobu dañ leen koy wax mais bu fekkente ne nii la ñu bëgg a CNG bi moom lañ a doxalee nii lii moom affaire bi du dem fenn parce que lii si boppam moom moo dul yoon te nag VIP am dëgg la mais fu ñu bokk mbëri mag yi fa lañ bokk ci a am war a ay responsable bu ñu bëggee nag tëb seen responsable ñoo fii dem nañu woo di bëgg ñoom li ñu bëgg a def xam dañu bëgg a diviser li ñuy def nii day jaxase affaire parce que boo ñëwee ci benn kuréel nga ñëw ci benn structure nga fekk boo ñëwee nga nga ñëw xëcc ñi lay yóbbu fee nga jël ñeneen bàyyi seen principal seen seen a sotte nga xam ne moom moo di responsable écurie muy président ak secrétaire généraux yi ak ñi fa nekk dañ leen jox gëdd te xam ne mbër yi ndaw yi dañ ci dañuy dañuy wu ñenn ñi di réaffilié wu mbër yi tamit dem dañuy dañuy dem defaraat seen licence def def renouvellement dem uti ay di uti lépp salle def lu nekk ñuy dagg licence di ku ne di nga loolu plus de deux cent ko ci léegi pourquoi fekkee dafa impacté dafa am dëgg-dëgg bu ñu war a mais waruñu mën a mën a bàyyi écrit dañu war a woo ñu waxtaan du question ay problème xaalis wala dara mais dañu bëgg nañu jox gëdd bu ñu am nañ ñu jox loolu lañu bëgg Aliou léegi li ma bëggoon xam mooy bi ngeen duggee ci biir yéen ñëpp lan lañ leen wax dañoo dugg si biir ñoom ñu wax ñu ne dañoo woo promoteurs yi ñoom lañu léegi fekk ñun daal comme ñoom lañ woo nañ ñeneen ñi daal mën nañ leen may mais comment se fait-il man loolu laa mënut a nangu ba léegi te nag par respect am yar ak teggin moo tax ñu nangu loolu mais mënoon nañoo toog insister toog bu yeboo réunion bi jaaree fa yàqu mais par respect bañ ñu ne rek ñii peut-être dañuy yarul wala nangam moom moo tax mais loolu dafa nekk loo xam du yoon ñoom waruñu woon sax accepter loolu mu ñu nekk ay ay responsable tam ñu ñu bëgg ñu laisser arrêt comme ça. nekkum seen droit puisque bi ñu convoqué promoteur yi lan wax. waaw mais ñu ñu convoqué promoteur yi ci affaire lamb nu ñu ci mën a woolee ñuy wax promoteur di bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy responsable écurie ak ak école de lutte loolu dafa mën a nekk. mënul nekk. waaw mais est xaar seen tour. Euh, am na si ñoo xam ne sax ma ne la am ñun ay promoteur la AREELS. jënd nañ daaw carte ma jënd nañ carte euh, jënd nañ licence su licence promoteur jënd nañ ko. sans frappe te fii ay ñi ay licence frappe ak ak sans frappe ñoom ñoom ñoo fi nekk. et puis suñu AREELS daal nee nañ mën nañ bàyyi benn xaw ma représentant ñëw ñëw toog fi waxtaan bi fa na war a nekk waxtaan bi yaatu. parce que ñoom keroog bañ toogee seen wax buñ daje ñoom wax nañ ne jox nañ subvention mais pour CNG la ak pour promoteurs yi fan la tege ñu jox ay promoteur ak waa CNG subvention bàyyi ñu bàyyi écurie école de lutte loolu. écurie yi boo bëggee ñu a subventionné. waaye bu ñu mënee subven bu ñu mënee subventionné promoteur ak CNG bu ñu leen mën a ñoom ñoom ci ci yan condition moom la ñu leen subventionné ñun lu ma la dañuy affilier chaque année. dañuy dañuy dañuy chaque année dañuy def ay renouvellement licence jël suñu xaalis di ko di ko fa dugal mbëri di bëre waaw mbëri léegi ñoom ñoom bu ñu bëree eh, impacté wu ñu ñoom tamit mbëri mooy que ne yow écrit yi dañ leen impacté covid bi daf leen impacté wala waaw mais loolu jaru nga question boobu jaru nga ma koy laaj sax su fekkente ne kay promoteur yi impacté wu ak ak waa CNG kon mbëri yi nga xam ñun daaw ñu am ay mbëri yoo xam dañoo dem ba war a bëre suba ñu arrêté ko ñu jëndoon seen def seen regroupement def lépp

waaw waaw waaw merci beaucoup merci beaucoup peut-être man la xalifa président écurie Tay Shinga donc man li may li ma mën di wax rek man interpellation bi may def dama koy interpeller mooy les autorités de ce pays là parce que làmb buñ koy wax école ak écurie yi moo tax ñuy wax làmb école écrit moom la promoteur yi di seet si moom la ñeneen di seet pour làmb mën am mais su fekkee daa am loo xam ne dañ ko war a def ci làmb ñu war a waxtaan ci làmb dañu war a woo toutes les composantes de la lamb à commencer par les présidents les responsables des écoles et des écuries parce que ak lu mënti demee ñoom ñooy base bi parce que foofu la mbër yi di jógee pour mën a bëre ji man mënuma comprendre ñuy woote pour discuter nan la ñuy ubbee saison bi wala nan la ñuy joxee les subventions yi nga xam ni moom mooy dem ci par rapport ñi nga xam ni euh, ci dañuy yëngatu ci làmb ñu bàyyi école yeeg écurie dem di woo des des des promoteurs des amateurs en quoi les promoteurs et les amateurs sont plus impactés que que que, que les les écoles et les écuries je crois que li ñuy def nii c'est justement du poli euh, populisme la ñuy def di xool ñi nga xam ni peut-être ay ay ay ay ay ay lobby yoo xam ni dañ leen di woo prétendant que ñoom ñoo yor lamb yoruñu lamb bi lamb bi c'est les écoles et les écuries su fekkee daa am na loo xam ne dafa jógee ci nguur gi mu doon xaalisu sénégalais yëpp ñu war ko damper les sportifs particulièrement les lutteurs dañ leen war wo les responsables des écoles et des écuries xool en quel point la ñu impacté ñu ñu ñu ñu ñu ñu subventionné leen à à de ça mais li ñuy def nii jëmul kër parce que lamb ñu ñëpp moom moom làmb donc su amee loo xam ne dañ koy waxtaanee dañu war a woo ñëpp waruñu woo ñi di bàyyi ñii wala di mujjee woo ñii waaw ñun loolu mooy suñ li nga xam ni moo ñu naqar te saison beneen saison lañ jëm si la si suñu continuer di def lii ñun nous n'excluons pas de ne pas réaffilier parce que mënuñu nekk di affilier wu di réaffilier wu ci loo xam ni on ne tient pas en considération joxuñu ñu benn considération donc dañuy woo les autorités que ñu saisir les les ñi nga xam ne ñooy diriger lamb ji ñu xam lan la ñuy def parce que affaire bi faut pas que ñu def ko affaire lobby damp ay ñetti nit ñu dem yóbbu subvention yi le reste toog di galérer parce que dans les écoles et les écrits y a ay xale ñoo fi nekk nekk nekk si ay situation yu difficile ba tax ñenn ñi di di jël gaal di dem di def leneen ak leneen ak leneen donc il faut que les gars ñu xam savoir raison garder jéem a xool responsables des écoles et des écuries ñu impliqué leen ci boobu boo xam ne dañ ko war a def par rapport à lamb nan la war a demee ak nan la war a jugee loolu mooy li nga xam ni mooy li nga xam ne moo naqari gars yi. merci beaucoup. asalaamaaleykum man la Pathé c'est le président école de Mo Fadam bon man moom dama ñëwoon tey sax pour représenter Fall production bu Kolda. daaw dafa ñëw CNG bëgg a dagg licence am ñu ni ko un million euh, euh, deux cent ngay dagg. parce que dafa euh, délai dafa passé parce que licence bi 300000 ngay njëkk a daggee après day day day par rapport ak temps bi bu ñu dem waxaat mu waxtaan ba ñu defal ko ko 600000 mu dagg licence 600000 te ñu repre ñu woo promoteurs yi nekk fii Dakar yëpp ak promoteur Sénégal gis naa di Sidi Diakhaté réunion bi commencé woon na déroulé ba ci kanam après nit moo jël parole euh, gis ni salle bi mi ngi nit ñaa ngi ñëw. mu xam naa ne peut-être loolu dérangé ko man bi ma jëlee parole en tant que euh, bi ma bi ma présenté en tant que représentant Fallou production bu Kolda dañ ñoom dañ ñoom ñëpp di reetaan quoi. mel ni mel ni Kolda ñoom ñu Sénégal quoi mais CNG la daggee licence daggul licence CRG de CNG la daggee licence en tout cas man moom moo taxoon ma ñëw fii. te 600000 la daggee ñi nekk ci biir yëpp 300000 lañ dagg te jotul tëgg benn combat fii saloon na ay combat ba pare léegi ñàkk quoi parce que Kolda la dëkk. Sidi Diakhaté ngi ko doon kaas léegi Euh, dafa wax li ma waroon a wax moo tax ma toog di déglu en tout cas damay ñëw ci beneen casse-tête représentant école de lutte yi nekk Guédiawaye ak écurie yi suñu mbëri ndaw yi jël avance yëpp nous sommes des impactés. gis nga mbaytin numéro 2. dafa war a bëre ak ak Diarra 2 le 12 avril bi passé ñu jox ko avance am mu jeex te te te te te naa joxaat nañ promoteur bi xaalis ba pare war nañ leen joxaat Youssou Ndour bu Père Balla et tant d'autres Gakou 2 fils de Balla bu école de Balla Gaye boo yooyu yëpp en tout cas man ñi ngi sama ginnaaw ñoom nee nañ du ñu bëre ñoom nee nañ ñu bëre te suñu mbëri ndaw yi jëloon ay avance yëpp du ñu bëre te ñun en tant que école de lutte de Mor Fadam ñun du ñu affilié CNG pour l' instant dañu téye suñu pour l' instant affilié ñu ngi déglu nag ñun dañu nekk ci benn dañu dañu tënku ci benn kuréel bu ñu woowee ARLC ñoom la ñuy déglu suñ jëlu seen responsabilité ñun dañuy dem ak suñu bopp en tout cas booy nekk géej waay yëpp man sama ginnaaw la ñu topp nee nañ lañ joxaatul avance ñu bëre bu ñu génnewul xaalis bi jox leen ko ñoom booy parce que c'est c'est les c'est les plus impactés promoteurs yi ngi si yëpp ay 4x4 fi gaare yor seen business di job seen job mbër yi am na ci boo xam ne bàyyi nañ bàyyi nañ seen métier ndax mbëre c'est des professionnels dañuy fay saal di dem fajar gi dun di sonn di di fay assurance di fay lépp école din moo fanam daaw am na trente trente licenciés boo xoolee doo ko gis si école yu bëri joso ngi nii dóor dóoraat affilié gul bàcc seras affilié gul euh, yoof affilié gul tan tam man maa ngi leen di woo sama ginnaaw ñu bañ a affluer parce que euh, ñun soxlawuñu ay nekk di siège CNG pour di bëgg a tëj suñu gémmiñ quoi lii nii fond Covid bi génn nii mbër yi ci war a jël seen wàll école de lutte war ci jël seen wàll ñun dañu daan subvention la def lépp ñu soon nag day bénévole ñu xool ci loolu moo tax ñu bëgg ñu tànc te fii Sénégal man maa ngi koy wax waa ARS nee naa leen ku noppi dañ naan ànd nga ci li def kon ñi war a wax nañu wax ak sumay grand frère bëgg ma wax mais en tout cas na xam ni école de moo faram moom combat guy gërëg moom amagul guy gërëg rek amagul pour mu leer sa bopp parce que man maa affilié chaque année te du ma affilié pour l'instant su ma gisul lu leer du ma affilié te maa ngi woo yeneen école de lutte nekk Guédiawaye ak yi nekk fii du ñu affilié loolu moom maa ngi koy woo maa ngi ci woo ñëpp ah merci beaucoup Badjili. maa ngi leen di nuyu man a deal moom il préfère woo mbër yi di leen jox si suuf mais loolu du jàll. ñun à notre niveau dootuñu affilié te gis nga wuude nu ma la gis la lay ëwale mooy CNG woo mooy ministre ñoom surtout pro ils veulent pas de nous parce que ñun on dérange. léegi benn mbër amatul trois bëre tey président écrit bi kiiwul si ñëwul man de personnellement dootuma signé su fekkee ne dañuy dem di leen woo di leen jox si marché wala bu euh, Tabaski jotee jox leen loolu mënta tam parce que ñoom lu bu jëkkoon léegi dafa changé mais ñun on dérange pas parce que ñun dañu am sunu areef lañu ay kilifa ñu am nañu yeneen liggéey ñun topp du ñoo xam ne dañuy topp mbër ñun ñooy def si mbër te xam nga la pour suñu koñatax ak yooyu promoteurs yi rek on a te loolu mënta continuer wax naa léegi bind naa ko journaux yu bari dès demain lépp dana génn ñun président école de lutte Malika Mbolo donc nekk membre de l'ARES bokk ci comité directeur de l'ARES l'essentiel li ma gënoon li ma bëggoon wax ñoom ñëpp wax nañ ko daanaka mais man je lance un appel à tous les écoles et écuries de lutte du Sénégal yu dans les quatorze régions ñu ñu affilié ci ARELS ARELS mooy association responsable école et écurie de lutte du Sénégal pourquoi parce que on va aller vers une fédération ministre bi dafa sas euh, le président CNG pour mën a mën a liggéey durant ces deux ans là pour ñu mën a dem fédération donc fédération pour def ko il faut que toutes les quatorze régions du Sénégal fu fépp fu école et nekk war nga mën a affilier ci ARELS. maintenant le président de la république maa lay lancer appel dama bëgg nga bàyyi xel ci fléau bi xew muy mbëkk mi Barça wala Barsax li ci gën a c'est la jeunesse qui part. donc les VIP lutteurs VIP yi nga gis nii ya gaare seen kàrkar yor seen visa visa dama ko ñëw ñooy ils a ont rien à voir maintenant la les subventions que vous les avez octroyées octroyées euh, soi-disant les les les lutteurs euh, VIP en activité donc dama buggoon nga bàyyi xel ci les petits lutteurs petites catégories yi nga xam ñoo nekk ci banlieue bi am métier di bàyyi seen métier di topp ci lutte bi pour mën a seen waajur. mais pour def mais pas lutteurs yi benn précision la wax. non c'est-à-dire lutteurs yi promoteur nak ngay nak ngay euh, subventionné promoteur bàyyi lutteur promoteur kan lay promettre kan kan kan moo tax promoteur di promettre mais tu vas promettre les lutteurs maintenant celui qui gère les lutteurs ki nga xam moo leen jëndal assurance dina leen affilier chaque chaque année dix mille francs chacun donc boo xoolee benn équipe bu am trente lutteurs chacun dix mille francs d'affiliation donc kooku ça fait ça fait trois cent mille trois cent mille divisé par cent soixante cent soixante écuries nous sommes cent au Sénégal donc loolu c' est un budget ñi jot a affilié léegi ñooñu seen seen nañ leen leen donc vraiment je m' excuse. ok man la Saloum Saloum maa représenté écurie HLM ñoom ñoo ma yebal pour ma ñëw présenté wo mais li may mën a wax mooy président na xam ne écurie yi chef yi ñoo ko yor ñoo xam jafe-jafe mbër yi ñooy jàppale mbër yi ñooy sonn ci mbër yi ñoo xam ñaata mbër la écurie bu ne am kon waruñu joxe kenn te joxuñ mbër promoteur boo ko joxe xaalis te mbër yi bëriwuñu moom lu luy promoteur bi di jëriñ mais bëre mbër la mbër booy jàppale bëre mbër nga war a njëkk a jàppale nañ jàppale écurie yi jàppale chef écurie ku yor écurie yi nga ñëw subventionné ko laay wàdd moo ko daan def bi mu fi jugee ba léegi amul maire buy subventionné écurie yi te loolu danaan am chaque année depuis Abdou Diouf ba ci Laay Wade ci Macky Sall rek la amagul ASC football yi rek lañ koy jox mel ni mbër bokkul ci senegal du dëgg nañu boole ñëpp ñu yem ñu dëb doon benn xam ne Macky Sall yàllaa ko fi teg pour mu nekk suñu njiit njiit nag xam nga ñëpp la fiy nekkal waaw jërëjëf euh, tey nga ñëw fii fi promoteur di réunion ñu génne leen. waaw di sant yàlla di leen présenter sama bopp man la Serigne Saliou Ngom alias Zos euh, di sant euh, sama Serigne sëñ Moussa Nawel di sant suñuy waajur. en euh, coach wala président. waaw je suis le président de l'écurie Dóor Dóoraat je l'écurie je l'ai créé depuis 2012 donc actuellement samay nawel laa fi nekkal. muy samay moromu papa. ñu mel ñoom Pape Fall ak ñoom samay morom mag ñu mel ñoom Pape Fall ak ñoom ñii mënuma lim ku lim day juum ñi fi nekk samay papa ak samay grand frère rek fi nekk euh, di wax ne man damay impliquer directement euh, le ministre Matar Ba parce que c'est un ami c'est un frère que je respecte et j'ai pas envie de sur lui parce que c'est un gars bi nga xamante ne euh, bëgg na làmb gëm na làmb man xam naa ci dara ndax am na blocage yu bëri am si làmb Matar Ba moo ko débloqué kon tey il n'est pas au courant j'espère si ce de affaire yi am nii parce que je le connais très bien bañ nekk buñ nekk buñ nekk feen discours noo def mu tooñ ma kon kooku on a une très bonne relation kon tey mënuma comprendre chaque jour benn mbër débarqué def benn conférence de presse wax keneen débarqué nga il faut ñu organiser il faut ñu jox respect làmb. organisation bi kan la euh, les parce que Ares Ares kenn mënul dem sans Ares Ares xam mooy lan. mooy les président écurie et les les les les écoles de lutte boo nee président écurie rek jaax école de lutte écurie lépp écurie la. tey bi ma leen woowee bi ma woowe CNG ñu ne ma ñoom ñoo ne ma dama bëgg ni Ares la am man xaw ma ne existe na mais nan la Ares di exister joxuñu leen respect biñ leen war a jox kon ne mbër bu ñu ñëw toog jël ñaari mbër sànni ci ginnaaw ñeneen ñu toog ana Moustapha Gueye ana Tyson ana Yékini ana Xaarim Ndiaye ana Baboy non dañuy waxtaan ana ana ñeneen ñeneen ñoo xamante ne ci làmb la ana Boy Kayre léegi dafa am ñu ñu war a subventionné ak ñeneen ñi dañ leen di bàyyi si ñu bàyyi leen dans l'aveugle mais ça se passe comme ça. jamais ma déggee li nga wax dafa mel ni dafa am kumba am nday ak kumba amul. non loolu lañ bëgg a def mais je pense que j'ai bien dit le ministre n'est pas au courant de ça le ministre boo xamee lii nii arrêté taxawal ndax gis nga Saalum Saalum ngi nii woo naa tey mbër yi bëri ñu ngi nar a ñëw dañu dañu ñu ngi ci yoon bi parce que yeneen ndaje yi ñu wooyee kenn woowu leen ci man mii kenn woowu ma benn ndaje pour te dire ah j'ai pas envie de mentir ndaje yëpp kenn wow ma ci mais lii arrêté arrêté ma fekk si. non woowuñu de man maa leen woo fekk si leen parce que xam naa ne yàgg-yàgg fii lay mujjee mooy les présidents d'écurie parce que li ñu xam ci subvention mooy euh, écurie yi nga xamante ne am nañu récépissé ñoom la mairie bi di subventionné kon bu pandémie ñëwee ñun ñëpp ñuy dund lu metti di dund ak sunu xale yi lu metti budget yi war a génn ñu ba ko jox promoteurs yi loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg balaa nag ñu jëm ci marche fa lañ jëm maa ngi war a gis préfet Euh, ak ñëpp ñu nga xam autorité ma xam ñu accordé benn marche bu mag boo xamante école de yëpp ñoo génn marche ko boobaa la ñuy xam suñu doole dégg naa ñu wax naan ARS yi dem ci ministre di ko wax di n'importe quoi loolu amul ARS mooy dëgg tey mooy dëgg ëllëg les gens qui ne sont pas au courant je vais naa woo ñëpp ne leen lii mooy ARS nii la ñu war a doxalee ba keroog mais ñu ngi pare nañ pour jàppale le président pare nañ pour jàppale président est président jàpp jàpp jàpp participer mi mais ñii la ñuy def ku leen encouragé wul tey fu dëkk bi jëm wax nañ ko fii léegi encadré xale yi xale yi boo nekkee si xale yëpp dañuy nekk si dans les école de da ngay ñëw normal ñi yi jàngal lan mooy bëre nga bàyyi sa àdduna topp ci ah mais nañu encouragé ñi ni mais jël xaalis jox ko promoteurs yi ñu dem lekk seen ginaar tëgg ñaari combat ñeneen ñi nekk non moom on est on est plus dans se monde on est plus dans bu ñuy bu ñuy bëggoon CNG changement am ñaanaan ak dal Alioune Sarr ku baax la nañ def ak dal mais bi lépp passé fi nekk aussi na recevoir nit ñi ñu Bira Sène man je le connais même pas je l'ai jamais vu ñu donc nañ ko ut audience ñu recevoir mu recevoir ñu le monsieur le ministre Matar Bossi mu recevoir ñu ba ci le président de la république recevoir ñu parce que boo xoolee ampleur du politique am yëpp lu bëre moo ko jox te mënoon a bëre pare tegg président ba c'est impossible kon ñu woo ñëpp ñu ñëw jàpp ci liggéey bi képp nga xam ne gëm nga làmb man je suis de gauche à parce que ku ne li groupe bi mu créé kenn mënu ko régler kii écurie la ñu war a régler bu ñu régler écurie yaakaar naa problème bi jeex ñu ànd ak moo ilaa ñun ñu ngi pare li ñu a pare te fii ak ko yàggal pare nañ demee demee am na ñu def ba ci def ñu topp ci accéléré mu jeex. Euh, jox nañ écrit yi jox nañ promoteurs yi vingt sept million mhm. am ci ñoo xamante ne te dañ ne promoteurs yi régularisé lañ koy jox léegi yow en tant que mbër loolu nan nga ko gisee. non loolu c'est pas important parce que boo xoolee écrit dinañ dem ba ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ba am lu ñu régularisé est-ce que xam ngeen loolu lépp président bi moo koy moo koy financé tey buñ ñu taxawee tey dañ fi taxaw taxawaay Mor Fadam taxawaay Mbaye Guèye taxawaay Père Balla euh, comment dirais-je euh, Doubales taxaw xoolal taxawaay ñëpp ñooñu ñoo créé école yi tey ñun ñun ay affilié affilié woo loolu c'est pas important koo xamante mi ngi créé écrit depuis 2012 jël mairie écrit jël mairie lutteur mais mënoo ko topp ci ay détails quand même on se la vérité li ñuy def chaque jour kan moo ñu ko jox du sax mbëri ñun on suñu propre xaalis sama équipe ma créé ba léegi man maay financé tout am écrit te a les mêmes droits artistes jox ni tey bëgguma leen sox tudd parce que ku ne loo am cinq milliards bañ leen jox ba cinq milliards cinq cent millions la ñu encaissé cinq milliards cinq cent njëkk nañ leen jox trois milliards récemment joxe nañ deux milliards cinq cent on est au courant de tout et ñun suñu sport suñu suñu activité moo gën a métti dañuy dóorante bañ day dañ ba day tuuru ah loolu dina dal mais il est temps ñu dégg ñu parce que duñ ko def comment ayam ndey comment amul ndey. kii mooy diw kii lii mooy diw ñun nekk duñ ay on n'est pas décomplexé bu dul loolu ñun fu ñu jógee dafa metti ci banlieue bi ci wut bi lañ jógee dafa metti fii nag la ñuy wane suñu bopp bu soobee yàlla jaajëf. Euh, kilifa gi nga baal ma fàttali ma tur bi tuuti. Euh, man Ousmane Ndour laatu tudd waaw euh, ñu ngi ma woon fii en tant que ku bokk ci association des promoteurs bi Ablaye Diop jiite waaw ma ñëw fii tey nag en tant que promoteur. parce que bureau promoteur bu bees bi membre laa ci en plus ma bokk ci commission bi nga xamante ne moom la ñuy wax commission contagieux waaw ci li ngeen di laaj nag lan moo waral ay nit ñi dugg ci biir salle bi pare mu am ñi ñu génnaat ma bokk ci ñu génn euh, ay mbir la rek ci biir dinaa leen ci wax tuuti nag mooy sama présence fii dafa am ñoo xamante ne ci kilifa yi nekk ci biir CNG bi la ñu bokk. mais sama présence moo leen arrangé wul. li tax arrangé wul li tax mooy li tax arrangé wu leen mooy euh, xam ci man loo xamante ne xam naa ko te sañ naa ko wax te man wax fu ma fekk la ma ci wax dinaa ko wax nit nag euh, bu yoon jeexul waaxu sil du jeex waaw comme que lii dafa am nii léegi léegi léegi léegi euh, moo tax bugguma réaction bi sax gudd mais li ma fi tax a génn xam naa ko. ndax boo ne dangaa woo promoteur de lutte sans frappe nga woo président ba ne ko yow ak cinq personnes président bi mu ko wooyee balaa ma woo kenn def ma woo ne ma buñ ma wooyee nii yow laa njëkk a woo cinq personnes la ñuy nekk nag waaye nag deuxième personne kii topp ci man yow lay doon avant tout d'abord ma ne ko ah mu ne waa ma ne ko ah mënoo seet yeneen mu ne ma non non en tout cas kon tel sa bopp balaa ñoo dem fen ma ne ko nag léegi boo paree nga woo Jax bu disponible mu ñëw parce que kooku kenn mënu wax lii sans frappe te waxu te waxoo Jax mu woo Jax après mu woowaat ma ne ma voilà Jax accordé na ma ne ko sa secrétaire dafa war a dem muy Yacine Tassar doomu Pa Ambroise waaw mu ne waaw kooku dina dem après woo ko kooku accordé encore waaw mu ne ma xaaral ma xool euh, Josephine Bassa ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko voilà ba tey loolu baax na noonu jub na ah léegi nag bu ñu ñëwee ba fii ñu ne am na ñoo xamante ne du ñu ay promoteur ku nekk présenté wu man euh, ñu bari fii man maa leen njëkk a nekk promoteur man maa leen njëkk a nekk promoteur te la preuve est que li ma la expliqué léegi comme euh, bi ñuy renouveler association bi man maa ngi nekk membre ci association de promoteurs ba pare en plus bokk ci bokk ci commission contagieuse bi yaa ngi dégg man bu ma ko tegg naa lamb sept fois. kooku mën nañ ko wax ne du promoteur de lutte sans frappe yor naa yor naa benn licence promoteur boo xamante ne Ndiame Diop boobu nekkoon ci biir di wax njame Diop jënd naa licence promoteur ci moom lu dul benn yoon renouveler naa ko renouveler waat ko renouveler waat ko waaw ci gattal daal euh, mbir mi xam nga lan la dafa am ñoo xamante ne sama présence arrangé wu leen. ñooñu ñan la nga leen wax. Euh, pour le moment xam nga wax ko sax du ngóora. Hmm. wax ko du ngóora mais comme que réaction à chaud la euh, damay bañ a juum te xam ne wuñu ma mais wax di wax yenn njuum tey mais xam naa lan la mais nag euh, comme que xam nañu ne man dañ maa woo man nee naa leen ku ma xam-xam ne man ñàkkuma ñàkkuma fuñ ma woo balaa may foraatu di wuyu woote wuñ ma woowul. léegi président président u promoteur yi. président u promoteur yi ki nga xamante ne moom moo jëloon responsabilité woo ma man mënoon naa taxaw ne ma ki ma indi fii. bu ma naree génn moom day génn ak man mais yooyu yëpp dafay mel ni daa am looy dàq te gis nga fii aw ma dara lu ma fiy dàq euh, mënoon naa waxee neneen mënoon naa defee neneen mais comme que xam naa ne bu ma génnee dem moom en tant que président Abdoulaye Diop bi ma wo moo ñëw ba ci man ñaan ma ne ma kaay kaay ma xam ne daa bëgg man ma jóg mais mënoon naa wax ne critère bi nit di yor pour nekk promoteur critère yooyu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp dafa mot kon Bira bu fekkente ne dafa xamul. bu bu fekkente ne dafa xamul na xool ci document wu CNG yi administrativement dina xam gis nga liste bale encore dinaa xam fan la ñu jëlee liste bi ak kan moo ko bind. parce que bu fekkonte ne Ablaye Diop bi ma woo moo ko bind xanaa dina ci def samatur tur te liste boobu daa am fu mu jógee. man li ma jaaxal mooy promoteur lutte avec frappe bi. ñëpp la ñu woo kullu kuy promoteur. pourquoi lutte sa lutte simple bi ñu dajale ci ñett promoteur ne ñeent juróomi promoteur lañ bëgg a lañu lañu la ñu invité ñoom ñoo war a ñëw ci réunion. waaw xam nga loolu yëpp comme euh, li ñuy wax rek xam nga depuis daaw. nit ñaa ngi dégg ñu ngi koy wax. ñu ne gis nga gis nga làmbu Sénégal dafa nekk ñaar dafa nekk ñaari fakteur muy lutte avec frappe ak lutte sans frappe ñu ne nag cer bu lutte avec frappe am lutte sans frappe def ko am lutte avec frappe ni mu amee promoteur noonu la lutte sans frappe amee promoteur maanaam étiquette boo gis ci lutte avec frappe rek am na ci lutte sans frappe kon gis nga saa boo ne promoteur de lutte avec frappe gestul nga ne promoteur de lutte sans frappe saa boo ne amateur de lutte avec frappe gestul nga ne promoteur amateur de lutte sans frappe ba ba ba mën a muy jeexee ba ci mbër yi am na mbor lutte avec frappe am na mbor lutte sans frappe yaa ngi dégg kon fu ñu wooyee fu ñu wooyee beneen côté rek dañoo war a gëstu beneen côté maanaam loolu mooy am di continuer di am day am day am des fois ci amateurs yi day am des fois ci promoteurs yi ba gis nga ko situation bi ñuy wax nii ci wàllu lutte avec frappe bi ba ñu koy wax xel sax xalaatul lutte sans frappe parce que bu ko xel xalaatoon ñu ne lutte sans lutte avec frappe dafa am critère bu ñuy wax ne ku ko remplir war nga cee bokk maanaam boo boo régulariser woon sa combat et cetera et cetera paas yi di jaxate dégg ngeen ko lu mu wax ci biir kenn amul lu mu ci dindi. ah mu ne maanaam na nit ñi di bàyyi wax wax ay promoteur u Dakar ak nangam nangam promoteur yi nekk dakaar yëpp maanaam kenn ñaanu ko yàlla Dakar bu takkoon tey ñoom ay bokk benn yoon génn Dakar dem te moom euh, promoteur yi nekk Dakar licence bi ñu yor. moom la yor di ko def comme noonu muy def kon bu ko nit considéré moom dafa xam ne ñëw fii di xëccoo ay date fii Dakar pour tëgg a combat na décentraliser dem côté Thiès comme que miin na foofu xam na foofu kon xam nga loolu leer na maanaam daal euh, li ñu bëgg a wax daal en grosso modo mooy nit ñi nañu invité nañu éviter lobby gis nga lobby baaxul ci benn mbir léeg-léeg nag nga nekk kilifa mu am lobby bu la wër te doo comprendre te doo comprendre day dal kilifa Sénégal yëpp nag. la preuve am na ci début saison bi balaa ñuy def CNG bi ñuy convoqué ñëpp mais li sans frappe déggoo kenn kuñ ci convoqué du amateur du promoteur du mbër du dara du tus ba def benn sorti ñu soog a profité wu di woo ay nit maanaam woo à waa arène adressé Ngor te ba def suñu deuxième sortie bi ci loolu. bi may woowoo paa yi di leen wax ne dinañu def benn réunion bu ndaw comme que dëkk bi day bañ dajaloo dinañ def benn réunion bu ndaw quelques personnes rek pour def benn sortie comme genre point de presse pour ñàkk a bi ñu ñàkk a woote lutte sans frappe paa yi ne ma ñun sax kenn woowuñu en tant que association boo xam ne ñoom ñoo yor arène adressé Senghor bi nga xamante ne moom mooy géewu lamb simple bi. gis nga le jour là bi may woo paa bi mu ngi nekk ay côté 14h balaa 17h ñu woo leen mu ne loolu mooy woote woote bi weccee. li ñu waroon a woo mëndu li sans frappe yëpp xam nga loolu yenn wul maanaam seulement nit ñi nañu xam ne euh, comme ni ñu koy waxee rek gis nga Sénégal gii yow ak loo mën a am ak loo mën a doon dangaa yor nationalité sénégalaise ma yor nationalité sénégalaise kon ñun ñëpp ay sénégalais lañu. yaa ngi dégg yeneen critère nag ay mbir la rek ci wàllu àddina ku nekk am fu mu jëm mais na nit ñi xam ne ñëpp dañoo dañoo dañoo égalité gis nga promoteur de lutte sans frappe kii amul ne kii promoteur bu mag la. di jënd euh, licence ci cent mille kii nekk promoteur bu ndaw di jënd licence ci euh, moyen de cent mille francs amu ci ñëpp a yem gis nga nag man dama bëgg euh, Bira no Njame Joobo maanaam ñi wax ne maanaam képp ku nekkul promoteur bokkuloo ci woote bi dama bëgg nañ ma indi benn critère kese kese kese boo xam ne promoteur de lutte dina ko remplir te man ma ko benn critère kese la laa la mënuñu ko critères yi promoteur de lutte euh, lutte euh, sans frappe di am yëpp critères yooyu yëpp maa ngi ak moom parce que li mën naa la ko sànq gis nga kilifa nag gis nga booy wax benn mbir daa am foo koy teg ngir yàlla ak yonent bi kilifa warul wax ci luy naaw nii ci ngelaw li pour rien du tout loo xam ne buñ la laajee mën doo indi preuve Biraseen nag euh, li ma xaw a métti ci moom tuuti rek mooy dinañ ko tromper ci lu bari na def tu na def na def attention gis nga nit maanaam Sénégal gis nga nit boo leen buñ la nee yow yaa jiite lii xamal ne ñëpp nga jiite amul ku ndaw amul ku mag amul ku xees amul ku ñuul ñëpp nga jiite gis nga lépp lu con li concerné ñëpp na ko ñëpp bokk. mais gis nga beddi baaxul gis nga beddi lii tubaab di wax discrimi discrimination xam ngeen euh, daanoon ngeen deg ci école de primaire ñuy jàngal xale yi naan apartheid est un crime contre l'humanité mais gis nga lii discrimination bii dafa gën a salte sax apartheid na ci nit def attention gis nga discrimination mooy waral nit bu demee dem dem ba xamul lu muy def mu taxaw rey boppam. jërëjëf am na solo mbokk bi. kon nañ ci def très attention baaxul lii nag buñ ko jàppee ne maanaam lamb rek lamb rek la rek non non am na beneen mbir ci biir te gis nga man nag dama dul wax ci lu ma xamul mais na nit ci def très attention gis nga lobby baaxul te gis nga lobby bii def lii dina tas tasar mu neex mu naqari dina tas tasar gis nga addina bi nit ñàkkul fu mu waxee bu la neexee nga bokk ci sa ruq sa néeg wax fa looy wax 24 heures addina bi yëpp xam ko c'est que wax bu bari bi moo baaxul mais gis nga bu ñu arrêté wul lii lii bu arrêté wul nit boo ko teree mu waxee fii rek dina waxee ji feneen gis nga nit ci lu mu bokk kenn du ko ci genne mënoon na demee neneen tey mënoon na demee neneen tey parce que tey tey tey tey administrativement rek bu ñu waxoon ni ci wàllu luwaa rek tey police ñëw ci salle bi mais ku nekkul promoteur bokkuloo bu ñu raajee promoteur promoteur critère bu promoteur wax dinaa ko wax. critère bu promoteur am boo bu ma la ko waxee nga xam ne kii am na ko kon lan moo ma tere bokk ci kii bi mooy li ma la wax sànq rek am na ñoo xamante ne sama présence fii def leen a arrangé wul mais nag ñu bañ ko ñu nangu ko bu ma waree wax dinaa wax lépp lu ma bëgg a wax dinaa ko wax incha allahu rabbuna merci beaucoup <laughs> jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb gis ngeen loolu lañ leen dégtaloon tey ci arène nationale mu doxoon daje boo xamante ni euh, président de la euh, de lutte bi wala boog euh, président CNG de lutte di Bira Sène dajale na ko promoteur yi dégg nga ut bi yëpp mooy lamb ba xam war nañ ko mën a def huis clos waaw ah, nangu nañ ñu ci ëpp nangu nañ parce que état dina leen jàppale kon nag loolu lañ fi dégtaloo mbër yi waaj leen takk seen ngemb dugg ci dini dem leen ci saal yi waaj leen te xam ne làmb bientôt incha allah rabbi dinañ ko ubbi di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax ba la incha allah ci beneen xew-xew làmb